lee wan mooy kon boroom kër yi rek kenn ci waa boroom kër yi ñoo génn dem ci pale ba xëy na sax am na ñu naan lu tax mu nekk pale bi mu bàyyi fi palais bi waaye nag euh, ku mel ne Macky Sall ak fi xeex bi yegoon bu dëkkee ci barab <laughs> fukki at ak ñaar ñënd na la ñëwal dugg wax dëgg yàlla war ngaa yërndu ko roq yëpp te yërndu ko roqi pale bi moom xam naa ne dana xaw a jël ab diir waaw <laughs> xam naa xam naa looloo tax waaye loolu li muy jàngale. mooy na jërëjëf <laughs> ah, ah, xëy na ah roq yëpp naa ko yërëndu. fanaan ah. <laughs> ba ñaari fan. yëg xool balaa foo yëg roq yëg roñ lali boobu. <laughs> muy jàngale rek mooy ab borom kër rek lañ fekk. na ko ay ci kaay doon président. Hmm. waaw ab père de famille la rek. Hmm. comme ñun bu dee ñee nag ay ay borom. ay borom ay borom hôtel lañ woon. Hmm. maanaam ay boroomi hôtel lañ woon ñu jël ne leen kaay nekk ci palais bi ñu xool palais bi hôtel bi gën a leen palais bi ñu yendu ci palais bi fanaane hôtel ndax bu dee Amadou Ba mi nekkoon premier ministre daanaka daa dem ba fa jàkkaarloo kenn fag mu tabax fa mu jël fa terrain bu ëpp kenn fag dàq tabax fa bu dàq kenn fag kooku même bu faloo boo ko ne kaay dem ci hôtel bi ma sécuriser la danaan sama kër a gën hôtel yëpp hmm, hmm. bu dee daanaka ba muy doon premier ministre lee mu tabax Mermoz boo ko nee ñëwal fanaan pale bi pale bi day day day naqari ci moom. ndax yorut woon kër borom kër. kër borom barke la ne woon loolu rek dafa am leen lu muy wane. bi ci des mooy c'est la première fois ñu am président de la république boo xam ne mën na laa tooñ léegi nga taal oto dem njagañaaw boole jikko bàyyam <laughs> waaw loolu euh, amuñu ko woon. waaw euh, baa mu sonal ñu bëgg ñoo fatt rek bàyyi bi jóg bàyyi bi jóg na ko nag léegi dama lay wax dëgg dégg nga yooyu yëpp amuñ ko woon euh, amunu woon itam koo xam ne mën naa taxaw ci kanam maanaam ñu noddu mu liqaam liqaam ko jub maanaam imam julli waa ilaa sax mu taxaw ci kanam jiite julli amuñu ko woon premier ministre amuñu ko woon ci président de la république tey am nañ te bu njëkk comme ni ko sëñ Babacar waxee ñun dañuy nekk ay jullit lool nekk ay sénégalais lool ñi ñuy jiita nekki tubaab lool réere réere diine ji lool ñu bëgg a waxtaan nga xam ne daanaka ñun li ñuy wax ñoom duñ ko xam ñoom li ñuy wax ñun duñ ko xam hmm. problème bu rëy la am fii ne man bu ma toogoon nii ci biir màggalu Tuubaa wala dara maanaam ñoo ñu ñuy wax patron yi buñ njiitu gouvernement bi même buñ soloon lii sëñ Babacar wax maanaam bu nu waxee rek da ngay yëg ni ñii du ñun. maanaam waa da ngay da dégg si naan ñii ci ponkal yi lañ bokk nguur gi la. Mm. dégg nga euh, waa état bi ñëw nañu. maanaam da ngay gis ne. différence bu mag. Mm. entre entre ñun ak ñoom. Mm. maanaam ci euh, ni solo weer yi ñuy takk parfum yi ak ñu mel ne sax ñun dañ leen a jaaxal euh, monsieur Ndiaye suba maanaam da ngay gis ne ñun dañoo am dañoo am problème sax compatible ak ñoom. li ci gën a soof nag mooy ragal ma dem. di fi ne woon maanaam ragal madame gi fi newoon daanaka suñu njiit yi moom madame daanaka rek maanaam man na mën nañoo teg programme bi yëpp madame ñëw xa moom daal ragal madame gi daal daa métti woon lool. te <laughs> fii Sénégal intellectuel nañ ma ko baal nag. <laughs> Ah, intellectuel daa yaa ngi joxañ Babacar bi. <laughs> non non dafa bokk dafa bokk ci ponk bu rëy la ci intellectuel Sénégal mooy ragal madame. waaw ah, day mel ne sax maanaam loo wax mu ne waaw ah, xaaral ma gis madame ah, madame loo xam ne. victime nañ ragal madame gi ragal madame gi rek jeex na moom. léegi moom ragal madame yi moom waaye ragal madame bi moom. ragal madame yi. madame yi moom garaaw. madame yi. madame yi moom garaaw. ragal madame yi moom waaye ragal madame bi. moom loolu dafay daa métti woon ci réew mi. li ma wax nii ma am ñu rek waaye lu wér la maanaam intellectuel égal ragal madame. Hmm. kooku moom. <laughs> monsieur xam nga li ma la wax. jaara ragal madam ñeme yàlla. ragal ma ragal madam ñeme yàlla. jàpp nga daal loolu yii ma lay wax rek maanaam jomaay sax yëgut na dañ na waaye naturellement la daa ñëw rek indaale ko. mooy dañuy tànn di dem muy wàññi ko ñuy tànn di dem muy wàññi ko bañ dem ba yegsi nag léegi tànn nañ suñu bopp. léegi nag li ci des mooy fulla ak fayda. liggéey. waa ci waaw fulla ak fayda daal di liggéey. fulla ak fayda bi li koy def mooy euh, maanaam dañuy bëgg a gindikonte suñu biir maa ngi koy wax léegi ñun jomaay xamuñu ko woon xam ñu bari ci ñun bokk dama koy wax en tant que sénégalais. Mm-hmm. Mm-hmm. boo waxee joomaay maanaam ñun xamuñu ko dañ naan rek ndawul sonko la. Mm-hmm. nga xam ne ko moo jékki-jékki maanaam ci tànnam la tànn joomaay rek génnee ko. bi mu bi mu génnee léegi lim jot a wax ak lim jot a def. maanaam amu ci lenn loo xam ne danga naan ah lii de moom. maanaam la ma doon xaar fekkuma ko ci maanaam cent pour cent lay indi ki tànn joomaay nag moo tànnoon benn projet maanaam indi ko teg ko jàpp naa ne nag li ñu fekk ci joomaay rek moom la ñuy fekkaat ci projet bi parce que du waroo ak li doon wax léegi loolu li ma ci bëgg a wax rek mooy li ci des comme sëñ Babacar Mbuub ni mu def sëñ Taahiru def ko man lu mel noonu rek lay xaar ci bépp sénégalais mooy ñun dañoo yor am réew amunu benn wérante japp na ni ki gëna banyak bañ Ousmane Sonko sax bu ngeen duggoon ci bruq da na la jub na la bëgg na Sénégal da na la am no fit da na la jambar na ta da na la itam du sacc lolu mom kiko gëna bañ sax da na ko bàyyee yi mom léegi nak amna xam-xam ak nangam nangam yoy mom leneen la kon nak manam yi mom ci man sànq rek maa ngi korfati bi kii di wax bi sëñ Tayiru di wax. ci ne ñun wérante wuñ ne maanaam état de droit moom dina am. Mm-hmm. kooku moom weddi wuñ ko. mooy candidat buñ naan dana bokk du bokk ñuy yéeg ak a wàcc gone yi manifester pour mu bokk gendarme yi tiire pour du bokk ñuy xeex ak loolu moom day day mm-hmm. sëñ Babacar bu wax na ca télé ba naqari na ma nga ne coppet yóbbu. Mm-hmm. day dañ dégg manam daj jek jek jekki bëgg négocier ak ben parti politique ñu lank nga jàpp ñu bari ay prisonniers de guerre duggal fi ne kay leen di wax ñu ñew nangu nga génné touti négocier wat nga génné wat après lolu mom yoy mom da fi joggé affaire chef de bande wa affaire chef de gang yoy yoy mom day jeex jeexna jeexna légui lolu bu amé li am rek moy état de droit day taxaw ko taw amul fenn foy fekk manam buur bu maandu njiit lu maandu. atte bu maandu pauvreté di fa nekk ba nga xamee ne économie moderne yii nu am amagul ay banque mondiale ak ay PIB ak nangam nangam boo ko jëloon ci misaalu Seydina Omar rek Omar ibnu Abdul Aziz ak mboolem jaar-jaar yooyu boo xoolee rek saa bu buur bi maandoo maandu ci atteem rek maanaam pauvreté moom day dañ léegi nag Sénégal comme li sëñ Babacar wax ñun li ñuy def dañ ko dañ ko war a génnee ci suñu bopp tey da ngay gis fii Sénégal maanaam tey boo doon dem def club karaté yi salle de karaté yi rek ñaata lañ fi dangaa dem ba réew moo dem day am fédération karaté te pour pourtant karaté de maanaam amul benn xalaaxa ak ñun ci Afrique waaye dafa nekk loo xam ne ca Japon Japon ak ñoom Corée yooyu muy laata ngànnaay yii di am fetal ak yooyu nit pour ñu bañ laa duma maanaam matukaay yooyu rek lañ doon jël mu wéq ay point yoo xam ne dañ koo jël mënuñu woon bind dañ ko doon këru di ko joxante di ko joxante di ko joxante ba léegi far na nekk loo xam ne nit ki sax léegi mën naa yor fetal ci poosam moo ko gën a mën a aar mais day dem jàng aar yooyu parce que dafa am leneen lu muy def pour temps même technique yooyu ñu doon am ci xeex ñoom technique yooyu la oustaz Xaarima Jaxate kalaa am ci ay atte maanaam nga xam ne day def ay technique am di atte di def ay technique di enquête di def pour pourtant loolu bu ñu ko téyee woon noonu mën na noo dem ba ay ay ay fu bari maanaam di jël technique yooyu technique gu enquête technique gu atte technique gu nàngam parce que booba ay ay ay ay ay dara amul maanaam dañ lay tegal benn kaa bàyyi la nga tëgg say technique pour xam pour pourtant ñun jaar nañ ci xeex. Lat Joor. doguma la sax mais dama mës a euh, dégg benn nettali xam na euh, sëñ Taayir euh, a gëstu ba xam. Mm. dañu ne Xaadima Jaxate bi kanam bi mu nekkee xaadi. Mm. dafa am ku rey nit ci ci penc bi kenn xamul kan moo ko rey. léegi nag muy def investigation. mu organiser rey nag pour ñëpp war a ñëw lekk. bi ñu taajee ndab bi ñëpp sukk waa dëkk bi yëpp ñëw sukk di lekk. mu génn ci buntu kër gi rek fekk muy takk ndiggam mu ne ah woote bi ñëpp wuy si nañu ba kii réew nit ki démb sax ñëw na na ma xaar foofu mu avancé rek waa ji jóg fëx <laughs> te ñëpp xamee nañu ko ñu ne jàpp nañu ko nga pour xam ne suñu marque yi. Hmm. dafa war a feeñ suñu doxalin yi. waaw fii de loolu kenn jàngale ko ko. maanaam kenn mu doon wëree ay ay points. Hmm. pour pour xeex. Hmm. noonu la kii wëree wute ay points yu. mais bee dañ koo téye. di ko valoriser muy dem bii dañ koo sànni. noonu nga koy fekk ci ñoom Lat rek ak ñoom euh, euh, euh, Mabba Joxu mm. xeex nañu ak tubaab bi tubaab yi ay colonel lañu woon ak ay ay ay ay leet na ak lu ne ñii kenn mosu leen a formé ci guerre comme ñoom sëñ Babacar Mbuub mi dañoo dem ba gis lu leen naqar rek ñu takk seen ndigg mm. jóg jàkkaarloog na mm. te pourtant dafa bari ay xeex yoo xam ne ay ay ay ay xeex yoo xam ne da koy dem fekk ñu duma tubaab yi jàppu leen dàq leen maanaam lan moo nekkoon seen biir bopp yi nan lañ doon nëbbutoo xam ni ñuy jogando ni ñuy def war fas yoy yëpp dañ ko bayyi mu jall mm-hmm. te pourtant la ñu ñenee am rek lañ amul lool nak daf ñoo top di continuer ba tay ji man nga ko yaatal lool waaw ba tay ji rek ci métier yi waaw dé ba derul lool fi nag bi bi tubaab bi ñëwugut sa moor amuloon sénégal mm-hmm. ku juddu rek manam da nga xam ni nii lay jaar pour mëna samp kër tak daajub lal daaj gong mm-hmm. daajub nik rabat ko tak soxna ut saw fas bu dem bay fee ñëw te pourtant avant tubaab yi di ñëw autosuffisance nañu nañ ko amal amul benn importation buñ daan def mm. ci faju ci lekk ci lépp mm. ñu demee ba ba machine yi ñëw xam-xam am léegi ñun exporté la ñuy def lépp mm. mu bokk ci lu ñu sonal léegi nag ko noonu ñu koy jógee ci culture ci lépp di ñëw di war gëm ne liñ nekk maanaam li sëñ Babacar wax lenn rek mooy saafara si mooy la fait que nga nga nangu ne liñ nekk baaxul rek. Hmm. maanaam léegi dëpp day ñëw. Hmm. maanaam da ngay tàmbali kon di doxe di doxe sens contraire ba yeggaat fa nga jëm. Hmm. defe naa juróom benn ñu dox ci euh, buñ ko doxaatee ci euh, arrière. dañuy dem ba yeggaat ci dërësine sénégalais. nam war a mel noonu la ñuy doxee. léegi bu ko defee lan mooy nag maanaam économiquement lan la ñu mën a def. nga xam ne sëñ daara fu mu daara